waaw sama gaay pour wan leen rek tey sonkoo chaque jour ni muy naxe sénégalais yi du yéen a ngi gis jëmm ji nii ci otom bi gis ngeen ko xam ngeen ne moom moo taxaw nii di wax ay soxlaan ci biir otom kenn sonalu ko kenn mënatewu ko léegi fii dafay wane dafa bëgg wan après sénégalais yi nga xam ne ñooy seetaan te xamuñu wala gisuñu ñu jàpp ne moom dañ ko mën a te gis ngeen ko mi ngi noonu di dox ba ci yàgg mu jël ñaari loxoom bu paree da koy bootal maanaam moom mooy jël ñaari loxoom mu boot ko ci ginnaaw maanaam day boot ay loxoom moom léegi bu bootee ay loxoom moom ba wër oto bi ba dem ci ful bi wala caméra yi buñ ko jëlee bu fekkoon vidéo bi amul gis nga ko mu boot loxo yi léegi bu fekkoon vidéo bi amul tey mais sénégalais yi bu buñ ko gisee gis ngeen ko noonu gis ngeen mu boot loxo yi gis ngeen de léegi gars yi buñ ko gisee dañ naroon jàpp que ni walla dañ ko jàpp dañ ko mënate dañ ko toroxal maanaam kii lii exemple la ci lépp li mu leen di wan yéen sénégalais yi maanaam léppam tuur lëndëm la léppam naxaate la léppam wane lu dëgguwul ci moom la léppam toujours rek image bi mu leen di wan yéen sénégalais yi ak bi nga xam ne moo nekk ci moom en réalité bokkul tey bu fekkoon vidéo bi amul ñëpp dañuy jàpp ne dañ ko jàpp jaay ko doole ba pare mënate ko génne ko yóbbu ko